faw rek mënul ñàkk ci état de droit maanaam ci réew moo xamante ne dañuy saxal dëgg waaye nag bëgg woote jub jubal jubanti comme ni ko président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak premier ministre Ousmane Sonko wootee faw rek ñu fexe justice bi tëddee njaaxaanaay waaye def yoonam ci bépp anam waaye ci bépp individu moo xam citoyen bu mu mën a doon moo xam nga nekk ci biir réew Sénégal ak foo mën a nekk ngir rek mu am pied d'égalité ñun ñëpp rek yem ci wàllu yoon bu yoon waree def liggéeyam yow mi mu interpellé doo am tiitaange doo am jaaxle ndax day def yoonam loolu nag bu amee ci réewum Sénégal dana métti ci ñi jubul waaye nag dana neex ci ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi leen di tooñ ba noppi buñ demee ci yoon ñoom duñu am dëkk ñu bari ñuy dem ci yoon ay baadu la wala sax ñoo xamante ne amuñu koom-koom saa su nekk dañ leen ni bundu wala ñu jël seen dëgg jëndee alal maanaam corruption bi nga xamante amoon na ci justice su Macky bi fi nekkoon nga xam ne ña nekkoon ak moom àndoon ak ñoom saay bu leen yóbbee ci yoon saa su nekk ñooy am dëgg loolu nag jeex na ci gouvernement bu basiru Diomaye Diakhar Faye gis ngeen ba jaxate propos manam kaddu yu ñaaw yi mu yëkëti woon tek ko ci premier ministre Ousmane Sonko waye yag na ko yëkëti lan mo taxon mu mucc waye mom ci boppam dañu ko saraxé sax mom ba jaxate li tax mo wax lolé moy mom faté né nguru Macky Sall daanu na bu yag kon nak ay kàddoom da ko waron woddu amaat benen système de communication bo xamné la waron lambo waye buñ lay jay ak naan yaa fi ëpp fit yaa xam lépp ñu ci bari boo gisee ci internet yi wala ñi nga xamante ne dañoo féete sax ci ñi nga xamante ne ñoo féete waa Benno Bokk Yaakaar Sénégal waa Kër Ñàkk Jàmm dañuy wax ne Bah Diakhaté dafa toog ci leer ay preuve la yor moo ne de bu fekkoon sax ay preuve la yor wala muy dëgg sax am na loo xam ne du waxi gor waaye sax du waxi pénc te loolu muy wax. li dara du te métti ci coow li mooy kakafeelu di woote wu ustaas ak imaam di woote borom xam-xam te maanduwul ragalul yàlla wax ju bon ji nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane ndaw yëkkati na ko teg ko ci jari Ousmane Sonko mbañeel kese lay wone moom ci boppam du politicien wala sax bu doon politique xamul ni ñuy politiquer la mu wax lépp. daal dinañ koy japp tejj ko moom ak ba jaxate ak ñu mel ni ñoom waratuñu nekk ci réew mu Sénégal di def lu leen neex te dara du leen ci fekk ne dafa am ñu làqatu seen ginnaaw ay ministre de la république wala sax ñi nga xamante ne ay responsable yu mag lañu doon ay milliardaire sàcc alalu réew mi bokkoon ci coalition Benno Bokk Yàqal Sénégal maanaam di leen financer ngir rek ñuy yàq deru askan bi ñoom seen opposition bi ñu nguur gu bees gi fi nekk ñaaw na loolu dafa mel ne amuñu ay argument ñoom ci bopp boppam lañ fi nekk woon mooy sàcc ak fenn ak jaxase ak complot gis ngeen mbirum Adji Sarr fu mu mujjee 2021 ba tey Sénégal yi amuñu jàmm coow li ngeen fiy dégg lépp ci réewum Sénégal ci wàllu économique ci wàllu yàqante der ci wàllu wëññante sutura lan moo ko war a coowal Adji Sarr loo xam ne gouvernement bu Sénégal war na cee taxaw ibi procès indaat Adji Sarr fexe ba ñu làqatu woon ci ginnaaw ba lii tey dal askanu Sénégal ci coow lu mag li nga xamante ne quatre-vingt-cinq personnes faatu nañ ci boobu léegi ak ñi ci yàqule seeni koom-koom ñooñu yëpp ñu daal di leen indemniser waaye fexe tamit yoon def yoonam ba Adji Sarr ak ñi mu àndaloon daal di rek mujjee ci prison dëgg boo xamante ne bu fekkee ne def nañ ko Sénégal dinaa féex am jàmm ba képp ku ñu tooñoon ci jamono yi Adji Sarr ak képp koo xamante ne yàqoon nañ sa alal ñu ñu ci faatoon ñooñu ñëpp bu fekkee ne ñu faatoon ñu mën a tëdd ak jàmm nelaw ak jàmm waaye ñu ñu yàqaloon seen alal ñu mën leen delloowaat seen alal loolee ci bopp mooy tax na gouvernement bu Sénégal bu fekkee rek bëgg na dëgg rek lépp leer faw ci yoon bii rek la mën a teg tànkam am jàmm may ñun ñu jàmm ñëpp am jàmm ngir rek lañu woote woon ci jub jubal ak jubbanti ñu mën koo dunde